maanaam malaat yeesalaat saa xel mi woy beralaat wayaat fi sëñ bi ma jaaxal def ko ab yaati bambaa ko tànn ca biir tànneef ya muy kunutin jugal doxal wayalal bul jug ci xam yi yaay doomi mbër satu mbër dëggit di jëf-jëfi mbër cay seyxunaa waane woo yaa jar di xaat-xaat yi gor nga tayit garmi nga fees dell yaa matoroy wayaf nga yaatu nga taxtil ñëpp nawlaat yi xam-xam bu doon dëkk fii sikkun na yaay ke ko gor aalim nga xaafis nga yaa fees dell wër yaa ñëw ci àll bi fekk diine raaf na fi tool nga jekkalaat ñagalaat tax ndaw ñi nawlaati biitu na naw na la ndax yaa dik ko jox ko jërëm jël ndaw ñi def leeni kàngam tey ma waylaati sa baay ba lam ji woon toolam yaay ko ko yor deqil nga bàccal nga yaafat lépp wóor naati maanaay wax ji ma wax ab lem la lemmi ko tey dafay guddal kat sama way baal ma wax tuuti ñagal yoral nga sëñ bi daaraam ji tax taxti ndaw ñi fi ne mokkal ba fi jóori xuraan ak xasiidaati naa yi fi bàyyam ba naaloon tey ko xool ko nga xam naalam mi yépp a matal yaa jaddi xaat-xaati ki yéemulit yéemu naa ji jëmm yéem na mooman wallaahi moo jëf lu tax may jug di ab yaati def naa la saa wéeru waay toppit ci yow bëgg a roy waat naa ne yow ku la roy raw ñépp wër naa tim moo tax itam Moustapha mii kat di rakk itam bay tooli jox la ko ngir yàlla ak sëriñ baati Cheikh Moustapha maa ngi ñaan bur dolli xéewal itam ngay mën di def lii ci barkeb sëñ bu mag baati toftal ca saa baay jawoon ngir jooyi xol limayam ndax yàlla ma barkem bee ta aar maati badar de wéet na te it jooyaat na sëñ ba ba dem wooy wooy danaa yooxu tey jii rek ma jooy kooti badar de ñàkk na mbër meey waane ñépp a ko xam setam nga sellam nga taxtil ñëpp naw kooti lim jëf ci yoon wii ku dul sëñ bàmba tuuti nga xam may jug di ab yaati mbooleen njabootug sëriñ Tuubaa gi ñépp a ko xam kum mës a gis dana jëf luy tax nga naw kooti lim jëf ci yoon wii ku dul sëñ Bàmba tuuti nga xam wallahi yi ji yopp jii jëmm tey jii rek ma jooy kooti alxaaji sëñ ngay ne yow mii way la luy lu ma tiis naa noppi tëj fii sama way dellu ñaan laati alayka wal ali wala saabi xayru salaatin bi min salaamin biha ahwil maziyaati